كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل سن أليم الذي جعلكم من الشجر أخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض خول كيبن أسمان سوف بقادر دي أم كانتن على أن يخلق مثلها أسمان سوف بو ببتاي فقل بطل كين لو ييمي دوخو نيبو بتخ تا نيون سونو كولاج كيرغي ليلي نجي ساغ رك مون مون رل سا كاو te yàlla bosom boobu ba tey nee na xool leen asamaan si hal tara min futuurin nee na ngeen ma weddi bu ngeen gisee benn paqu-paqu asamaan ko weddi leen ma te suñu bos quelque temps après kër gi day am fissure nga oo maçon bi ba badu mi day tabax ne bii moom 10 ans balaa 10 an quelque temps un mois cinq mois nga oo bàyyi badu waxoo moon lii de mu ne non fekk keroog ñu ko doosee la yàlla moo mën doosee non ciment bi booy ni ñu ko sànni yooyu yooyu ngi expliqué dem sa yoon juróom-ñaari asamaan yi lan la xew nee na juróom-ñaari asamaan ak suuf si ak li nekk si diggante juróom-ñaari asamaan ak suuf si muy nit yeeg jinne yi rab yeeg géej yeeg tabia bi yëpp muy nature bi loolu lu ñu wax ñoom day dëggal nañu waa ji nga xam ne moo tëdd fii ci jàmmalaay ndax nag géej moom weddiwu ko xam nga ba ñu xamee ni yàlla nguuram moom kepp la jëfam moom kepp la da ngay wàccaat xam wa wahidun kenn la fi zatihi ci jëmmam waaye nak wa sifatihi ay melokan melokan yàlla ban ak ban la bil wujudi yàlla amna te bamuy am ñun amuñu te suñu borom moñu amal yàlla mo jitu ñépp yàlla nak bu ñëpp deme mo fi dess kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fa bi ayyi آلاء ربكما تكذبان والمخالفة للخوارث moom borom bi wuti naag ñun ci lépp Pape Diagne ma ñëw wal qiyaamu bi nafsihi yàlla taxawaay bi mu am taxawaay boppam mooy man mii léeg-léeg damay xëy am problème mu dépense feebar lot am yaakaar ci nit mu ñaanal ma mais yàlla boobee ba soxlawul dara suñu Pape Diagne yalla bu fekkoon melokaan dina yalla wiir rek la mom moy ki wet ci boppam loolu doyon na ndax serigne dama wax ni serigne xam nga lan la gëna bañ wet xool leen jibi caw mi sëriñ li mu bañ moy wet serigne bëggul wet serigne foko fekk rek am na ñu toog si wetam da ko bëgg yalla rek moko ñëmi yalla rek moko ñëmi imagine toi suñu borom bu fekkente ne sàkkulul malakal moti bi nga xam ne ñu ñëpp dañ ko ragal yalla ne waaw non attends ku dem ba war a dee damay xamal ni sa àppa jot na léegi ñu ne dañ la gasal pax bàyyi bëgg doo dee nag mais toogal noonu ñu gasal la nga toog xaar ma waaye li nga war a dund jeex na bu doon contrat boobu dana metti isa parce que nga taxaw di xool pax bi ni mu xate ñu war la jël dugal la tëj la doo lekk doo naan soxla du courant du dara nga war a toog foofu bisum pénc kan moo koy d'accord moo tax bii metti na mais moo gën a oyof suñu ndax doo yëg dar doo ni des nay xalaat kon yàlla moom cappaacu lu wiit moom rek moo ko mën mais nag ci ngay xamee ni kii mën a jël nit jël ruwam heure bu mu ko soobee mu dekki laat ko jox ko ko nga xam ni ku faara ahlu màkkata loolu lañ laa di rasulullaay a isa mit naa ndax ñun suñu demee ba dee ba fëndëx suñu yax yi jaxasoo ak suuf si li nga xam ne mooy yàpp bi dugg ci biir suuf si a inna la marduduuna fil xaafirati ndax ñun bind bi ñu bindoon bu njëkk ci àdduna taaru rafet xees wala ñuul njool gàtt ndax yow boroom ngi am nga kàntan bu mel ni delloo ñu ci loolu mu ne balaa axakay wallahi wallahi ban yàlla mën naa ko yàlla nag dafa am lu mu bëgg li mu bëgg lool nag mooy taw xiir bii ñuy waxtaani fa laay taxawee Pape Diagne jërëjëf la loolu laa soxla xudra boobu may moo ñëw si lañ taxaw ni tey muy tawxit bi ndax yàlla dafa am lu muy nam ma te la mu nam ma ci tawxit bi mu nga xam ne lii mooy tawxit tawxit bi ñu waxtaan nag soo demee ci njàng bu njëkk ba war nga xam ñaata tawxit ñu am dafa am tawxit bu ñu wax rububiya uluhiya asma wa sifaat defe naa loolu ñëpp xam nañ ko oustaz maam dong ah ok mbooloo bi xam na xaw ma ndax di ngeen ci d'accord wala déet mais damay wax ne ñaari façon tawxiit moo am ñaari façon tawxiit moo am ndax tawxiit boobu ñu jàngoon ci tiir njëkk yi def ko tawxiitu rububiya ak uluhiya asmaa wa sifaat tawxiit boobu nekkul maanaam lam yu rat rotul fi kitaab bi ci tiir alxuraan wa sunnati ak sunna dalilan tegtal bi joxe ni ala aqsaamu tawxiit amul ben ay alquran boy tari ne nangam ak nangam tawhid la yàlla wax amul way nak walakin way urifa xam nañ ko zalika lolu bil istiqrar taami ci saxal ba nga xamne saxal nañ ko min ulamaay hasil fanna borom xam-xam yi nga xamne sen xam-xam dafa nacc ci aqida ñom ño tok waxtan ni fiq amé aqida am ni demé ni ki nonu ñi jëk ñi nak ño julon tawhid def ko trois parties ñi tawhid bi moy rububiyya benen bi asma wa sifat troisième bi nek li nga xamni muy uluhiya légui actuellement dañ ko ségat teunk ko ci ñaar tawhid bi ñu wax fil ma'rifati wal isbat dafa am tawhid bu ñu wax ma'rifa isbat ma'rifa moy nga xam yàlla ba ko xamé pare wal isbaati nga saxal ko moto sayna limam kendi mom di la ilaha illa allaahu la saxal di wooti lillaahi daal ni aajiboo wuy leen ci dara nga jëm jërëjëf loolu mooy baat bi première mooy ñu xam tawxiit bi may expliqué muy tawxiit fil maarifati wal isbaati mooy tawxiit xam yàlla saxal yàlla توقيت بوب ما وحني موي يبي يسني جيني موي توقيتهم في المعرفة والإثبات نينانيو المقارنة ممن كتولي توقيت بيغا خاني موي ربوبية أك أسماء صفات لي ليرنا ما وحني نغين باي خل باه لي ما يوح يسنى توقيت بي ما وح موم لوا مكة سخلون نيون نيوم نيوتا يام توقيت بي ما وح نيون اك مكة نيوتا يامون ñoom doon nañu dundee tawxiitu rububiya asma ak sifaat ci nan parce que bu fekkee danga xool soo demee surtout naj mi suñu borom mi koy wax ñoom amoon nañ yàlla yu ñuy wax laata ak manaata ak usa waaw lu tax ñoom ñu amoon yàlla yooyu nga xam ne mooy laata ak manaata ak kon amoon nañ ay yàlla yu ñu gëm ñoom te seen yàlla yooyu sax ñoom demoon nañ ko ba indi ko melo ñu tabax ko utal ko tur li koy firndeel mooy keroog fat ko màkk bi ñu ibbee màkk rasulullah yi ñëw dugg ci kaaba ji keroog ba muy daaneel di màbbal la nga xam ne mooy seen yàlla yooyu seen asnaam ya boo ko fàttalikoo xul jaa al xaq wa zaqaha baati la inna baati la kaana zëquqan wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminina keroog la fa nekkoon ñoom nañ jëloon seen yàlla yooyu mooy yàlla yi nga xam ne ñoom nañu yaakaaroon ci li nga xam ne mooy dund ak dee am wërsëg ak feebar ak soxla yi ak aajo yi dañ jël lépp jox ko seen yàlla yooyu boo jëlee li amoon démb fële nga bëgg a xool waa ji gars yi dañ naan mais bàyyi laay lal la fi def alayhi salaatu wasalaam mais moom xam nga léegi actuellement da nga gis laay bëri donc comprendre moom bi muy ñëw fii amul woon dara foog c'est boo ko bëggee àtte si tey il faut nga xool moom bi mu fiy dund lan moo fi nekkoon. gis nga boo ko tollalee ñoom nu ñu amewoon seen yàlla yooyu yaakaar ci seen yàlla yooyu tiit seen yàlla yooyu ci boppam moo tax ulama yi dañ ne lan moo tax ñoom ñu am tawqiit rububiyya asma sifaat te nekkuñu ay jullit kon dafa am fu ñu kalewu loolu mooy deuxième partie bi ñu jëm fële ñëw fii fii. Seydina Limaam salaam da dégg suñu mbokk waykat yi firikat yi bàyyi laay moo fi saxal laa ilaaha lay laa ilaaha illallaah déet moo ko fi saxal d'accord naa mais am na lu mu fi fekk nag avant mu koy saxal wallaahi waaw wallaahi fay xam nekk yow gis nga xam nga loo fi jàng fii ci sawu jant li may wax mag ñi toog xëy na amaana ñu bàyyi ci xel waaye bunt bi may dugg sëñ Modou dañ ci ñaanal suñu waat ju tedd muy Baye Balla Laye muy mag joo xam ni ku ne xam na sama diggante ak Baye Balla mu doon jàmbaaru diine ji waaye ku mel ni man ak ñu bari bëri daanañu dem di ko jege ndax mag bu nekkee cib dëkk jiitu la ci diine ji jiitu la ci yoon bi boo def xale lu la yàlla mën a may may may demal nga approché leen nga jël li ngay jël ci ñoom ak dolleeku lay doon am déet mooy dëgg di yow loo fekkul mënoo mus mucc buñ ko bindul il faut nga jege mag ñi ndax moom ci boppam bañ daan toog ak moom man bi ma toog ak moom da daan jël oto def ay moyenam di dem dëkk ak dëkk ngir rek limaamul mahdil muntazar alayhi salaatu wasalaam kooku nag moyen ba mu amoon est ce que yow am nga ko kon bu demee ba dajale jege ko ndax mag ñi bu leen jegewul dañuy dem rek xoolal quelque temps Baye Abdoulaye Diouf xoolal ku mel noonu xoolal kenn yooyu nga xam ñooñu taxawaay diini ji ay tiitër nañu ci kaw diini ji dinaa la wax nag fii ñu mbokk lébu yi ndax man mii boo ne Issa Ndoye rek jeex na kon su ma nee su ma su may wax suñu mbokk lébu yi bu fii lébu di mer bul mer ndax maag yow ñoo ko bokk <laughs> maa ngi ca biir bàyyi lay fii alayhi salaatu salaam bu mu ñëwee fekkoon na suñu mbokk lébu yi amoon nañ seen yàlla bu ñu wax xamat xamat danaa leen wax xamat lu mu daan def ma xool sama mbokk waykat yi fan nañ ko jëlee ci libaas ñag wax na ko wala déet waaj leen de bu at bi mosaan teru xamaat moom daf leen daan laaj ndax xamaat daf leen daan wax xew-xew bi am ci at biir di ñëw ak bistop ak bis ndax moom yàlla may na ko lu mel noonu bu nee xamat nag xamat ne kon am na mbindeef boo xam ne moom lañ jël tuddee ko xamat koo xam ne moo leen di xibaar di leen xibaar information yi nga xam ne mooy luy waaj xew loolu ba tey des na fi nag xam-xam boobu ndax xam ngeen yoof bii lu jëm ci wakkaam ak yeneen yëpp moo leen jur kon ñii ñëw jóge fii yenn mbokk yi ngor waa sàmbeen dem keneen ak keneen daal dem nga tas lool la demee wàcc biir réy ci yaram Ndakaaru waaye xamaat nag lu jiitu mu leen wax xibaar ne leen ren jii seen seen mbay bi dina dina dina ni mu tuddati dana baax waaye seen kilifa diw dina génn àdduna nangam ak nangam su ngeen bëggee mu gudd fan wala boog naataa ngi am def leen lii ak lii ak lii dafay am charte xam nga charte bi lan la woon dañuy fekk xale bu ndaw bu juddu bees tàkk bu amagul bàkkaar wala xale bu góor boo xam ne waxambaane la te mësta njaaloo xamaat ne jox leen ma nit kooku bakkinam dama ko soxla xoolal ma lii dégguma ko de dégguma ko de wallaahi lii lu doy waar waaye li baas nag jërëjëf waay nu jël nit koku yobbu xamat ah damaa déggul de waa jërëjëf <laughs> ndeysaan Mbaye Badou Laye Oustaz boo demee ca géej gële sama mbokku Yoof yi man ak ñoom ñoo bokk demal ci il bële bee ngay séen lu ne xew dafa ca yooyu il bii lu ne xew na fi te jamono joojit li ma lay wax ni xew na fa waaye li yéeme mooy Isaa buñ ko jëlee rey ko jox ko bakken bi xanaa doy na déedéet dañ ko daan fees ni ñuy feesee xarum tabaski boo ne bàyyi laay liggéeyu fi dara changé fu dara ñëwal si ñun dañ ko daan feese comme ni ñuy feesee nit deru nit kooku moom dañ daan foore seen tabala yeeg seen tam-tam ya am na dëkk boo xam ne actuellement fii ci réew mi boo fa demee tama baa fa ku ñuy fal ak ku ñuy folleek ñoom seen manga fa Arouna yaa ngi may déggam waaw man daal foofu la junj doy na borom xel junj yemuñu ci loolu ñu jëlaat loolu yëpp téye xoolal ma lii ñu dox ba jamono nag ñoom ñu dox ba jamono. jël loolu rek teg jiital ko ci kooku ne naan sukkandiku seen dund seen dee am na ñoo xam ne sax kenn mënu wax lépp kenn mënta wax lépp ñu ne ba quelque temps après ñuy jaxasoo ak ñi nga xam ne mooy rawxaan yi nga xam ne dafay aajo ci wàllu jinne moom la alxuraan di wax ni wa kaana rijaalun min al insi yaawzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduhum raqaqan kon bàyyi la lim fekkoon lu yéeme la mu ñëw jël baat bi saxal ko génne leen ci problème bi ma mati mel noonu indi leen xëcc leen te xam nga nan la ko réglé ci ñaari baat ba ñu jullee léegi imam bi ndeysaan imam Ousmane wax na ko te tàkkusaan bi di ko wax timis di ko wax géewe di ko wax kay benn benn rek. bi mu bëggee mu deñ daf leen dénk baat bi jàngal leen ko jox leen ko di leen ko dénk ba tey muy benn baat muy baat boo xam ne mooy laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi waaye nee na bu ngeen bëggee baat bi jëri leen na ci xirtal xirtal seen bopp làmmiñ bii suñu borom amal ñu ko te làmmiñ bi di prisonnier ndax làmmiñ bi balaa muy génn dafa am ay gris gir yi mooy lan mooy li nga xam ne mooy bëñ ñi am na buntu buntu yi lan la la nga xam ne mooy ñaari tuñ yi moo tax suñu borom nee na bàyyil xel ca la ngay wax ak la ngay tudd bàyyi lay xam ni làmmiñ dana dana dana labal nit ki ëllëg yowmal qiyaam dana ko indil ay jafe-jafe ndax jëw ca làmmiñ rambaaj ca làmmiñ fenn ca rambaaj ak lu aju loolu bàyyi la ne remplacer naa leen ko jëw ak ak yu mel noonu ci baat bu tedd bi muy baatub laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah jërëjëf jërëjëf waaye loolu lañ daan dund ñoom wàccal ba suuf nag nee naa la am na ñaari baat yoo xam ne moo tënk baat bii muy baatu laa ilaha illallah ñaari baat la baat boobu si ngay diggi ni waa makkatal mukarama lan moo taxoon amuñu li ma amul mahdil muntazar alayhi salaatu salaam fii ñu ngi fi fekkoon mënuñu am tawxiit xam nga lu mu doona sëñ Ibba ñu lay jaar baax mooy baatu iyaaka nahbudu wa iyaaka nastain ñaari baat yi moo lëjaloon màkka lëjal ñu fi fekk ndax waa cent 360 yàlla nekk ci biir kaaba gi ñoom d'accord ñu woon iyaaka naabudu iyaakum nañ bëggoon iyaakum cent 360 yàlla yi nahbudu nañuy jàmb wa iyaakum te cent 360 yàlla yi nastainu nañuy sàkk ndimbal ñal màkka ne leen déedéet iyaaka muqaatab kenn la du keneen qul huwa allahu ahadun nasta'in ngay jël tëkkale ko ak la nga xam ne mooy samadu ku ñëpp jublu ku am aaja waxal ak yàlla ku am soxla moom ku tis moom mooy dindi lépp di dindi njàqare yi parce que nag iyaaka yow dong yàlla yàlla bu dekkee moom dafa nekk ay junni yàlla ñu yaakaar ni junni yooyu mooy rek le problème àdduna kon ñun war nañu xool suñu bopp ndax yàlla de kamaalum dafa mat ci lépp ci lépp moom subhanahu wa taala nguuram bi nga xam ne mooy nguuram gu tedd gi gu màgg gi amul kenn koo xam ne moom la ko bokkaale moom subhanahu wa taala bay lay nee حيث كنتم tax عينينا باي لاي نينا ولا تغفلوا بولن ak kuy ساماي وا كير اك كوي جوليت عن lan moo tax mu sant ñu ne ndax turu yàlla bi am na lu muy def yuzhibu dafay dàq dafay soril bi say aate ci xalaat ak def lu safaanoo nit nag boo nekkul ci safaan rek amaana yaa ngi ca mbaax moo tax mu digle ko noonu moom Seydina Limaamu lolu nak du nek fi bu démé yowmal qiyam néna wa man képp ko xamné kasul kasurat bëri na rok la nga xamné wazinu bil xustaasil mustaqim ci peesukaay ba amna lay xew dakalal bu ñu bascule bi ba xol gis ni yiw yi mo ëpp sa fan ba rek yërmande suñu borom ak bi barakati nabbi bi mën ngaa tàbbe fa nga xamné moy aljana aljana bobu nak pap lo def lu bax lu ne nel incha allahu daañ ci ñëw kon wax naa la baatu iyaaka fa ma woon yow dong yàlla nax budu nañuy jaamu wa iyaaka te yow dong yàlla nasta inu nañu sàkku ndimbal ci lépp xam nga lu tax dangay ngay dégg ni baat boobu mu moo lay tënk taw xuutu taw xiitu uluhiya taw xiitu uluhiya boobu moom la gars yi réforme waat di ko tuddee ak taw xiit fil xasdi wa bi mooy wiital yàlla ci looy sàkku

di jolli te nit ñi changé wuñu xanaa xam moom bu fekk continuer tawxiid bi ak suñu suñun géew yi ñu def conférence yu bëri yi jàng yi dootu ko jarati parce que heure njàng yi def yëpp mën nañ ko liggéey dolli suñu xaalis defaraat taar bi def dëgg yàlla nañu xool li ma leen wax jàng si sikkar su bëri sii nit ñi toog di xadis bay lay neena bay lay nee na bàyyi lay nee na bu doon tawxiid bi dugg nañu carrément mag ñi lañ naan def dinaa la wax lu mel ni dama sa xaarixu Thierno Mbaye Sylla keroog ba mu faatoo xaarixu waxoon naa ko ca troisième jour Ibou Seyni ku ko bëgg a xam demal xaarixu directement mag ñaa ngi fi li may wax nañ ko vérifier keroog Thierno Mbaye Sylla ba mu faatoo bàyyi lay ci boppam mag ñi bañ ko suulee sax daf la digg ñu dem tool ya waaw أخلنا أيوب ابنه للخيم العام waaw keroog xool ci xew bàyyi lay na mag ñi rapidement dem leen ca tool ya xam nga loolu mooy sunn su njëkk sa mooy dañ daan yóbbu suñu néew si kar def lañuy def bu ñu paree ca saasa kër gu mag nañ daan daje sikkar bu ñu sikkaree mag ñu ku nekk jël sa gopp dem tool ya looloo fi amoon def naa d'accord nañu waaye keroog ca dëj ba dangay fekk keroog tafsir Abdoulaye jàll ak yenn mag ñi bàyyi lay moo leen ne xanaa déggu leen Jibril wàcc na ci rob bi wax na ak man ndax yéen a ngi koy dégg waaw yu ndax yéen ñoom sax dafa yéeme sax la mu wax dafa yéeme def leen est-ce que sax yéen gis ngeen Jibril comme ni ma ko gisee. waaw Samia. waaw ce que yéen gis ngeen ko wala sax dégg ngeen ko moom. xoolal lii am na ku ko yebal ku ko yebal kan la suñu borom ci man lan la wax ak lu fa xew ci xew-xew bi may ñëw waaye way kii yàlla na fi yàgg te wér que boo waxee benn tegtal am ku jël tegtal boobu taxaw samp ko ne mu ngi nii isaa loolu ak sant la te mag ñi la ko waxal de ndax gis ngeen ko Jibril. ndax gis ngeen Jibril dellu ndax dégg ngeen li mu wax waay keroog nee leen bis bi ci waxtu bi ci heure bii ba at bii dellu si waat ba waxtu bii lu fa waay def ci bàkkaar suñu borom jéggal na la ko muy tolloog innaa lakk lakka fatxan bi nan li yaxfira allahu laka maa taqaddama min zanbika wa maa taaqara wa yutimu nicmatahu alayka wa yahdika siraatal mustaqim daraja jooju bu ñu ko defaloon démb suñu maam limaamul mahdil muntasar suñu borom meer na ko fii waaye mu jël xéewal bi bokk koog mag ña loolu moo mat a bàyyi xel xoolal lii te ci laa ilaha illallah bi ñu doon tudd mu wiir ci ñoom wallahi dégguma baat bi de baat bii la woon dey muy kalimatu najaa baat bi la de baat bi mooy siraatal mustaqim dey ci baat bi la mag ñi amee lii waaye lu xew lu xew dégguma leen de dégguma leen de waaye ku ko wax yal na yàlla jéggal say bakkaar gudd fan wér ak wérle la wax nga ne delloo ma ca baat ba baat bi nga xam ne nee nañ ku sax di ko tudd am na luy xaw ban baat la waaw waaw naka mbooloo bi xooy na sax tuuti nañ koy tudd mu àgg suñu biir xol xolal baat bi jërëjëf jimbi kenn du si doyal laay la te moom boo dee moom la la yóbboo nag xoolal lii waaw ah, ku nekk na rabba laay laay laas bayit delloo ma ko foofu waaw reculer ci baat bi rek laa soxla. wallaay. ana Baye Moussa ana Baye Moussa ana Jimbi. waaw.

bi laa soxla baatu laa ilaaha illallaah mooy fi dajale tey jii waaw waaw waaw jibi ndeysaan dafa am nak lu am solo lu am waaw la la jeje bo Ousseynou li yeme dafa am lu yeme lu mata bay xel muy bat bi mag ñi mom dan dan wax fa ci seen aajo am yek yek doyna baat bii la ah bu dégguma la de buñ koy riime dina baax de wallaahi waaw nañ ko riime nank rek mooy waxam. moom wallaahi. sama kiiraay. baat bi rek. dégguma la si baat bi rek. jërëjëf. baat baa ngi noonu. baat bi la mag ñi daan wax. faj ci seen aajo. am ikhlaas. la am ixsaan rafetal sittu dëggu mahabba bëggante izza tedda nga lépp ci baat bi nañ ko daan amee bu dee baat bi mooy raxas xol yi day na waar ndax mi ngi raxas ba tey de tey ba mbañante gën a yokk xuloo yi tey la yokk noonante yi tey la yokk waa baat bi ana asaar bi ana jeexital bi su ñun waaw. wallaahi. zikran kasiran wa tasbihan bila sami ila la Pape Diagne baat bi may wax ak baat bi ñëpp di wax li yéeme ci baat bi mooy. bu la waxe bàyyi laay fan la ko jele mak sama wax nga ko legi addu zakata abdanikum asaka bi nga xamni mo wara génn ci yaram bi lan la mu ne weccee len ko batu la ilaha illallah batu la ilaha illallah bi bu la laje bàyyi laay fan la ko jele mam ndogo imaam Pambay daka daan wax malaka ba nga xamni mo jël ruuy yu selay def ko ci peñe ya fe ku ne xamna na bàyyi laay xam suñu yaay yi jigéen ñi sax dañ daan toog jël li nga xam ne mooy ceeb ya toog di tomb te di gis malaaka yi bu ñuy jàll ruu bi ruu yooyu nga xam ne mooy dem ci peñe yu sell ya yu tedd ya malaaka yooyu sax baat bii nañuy jëfandikoo muy baat bu sell baat bu tedd ngi nii baat bu màgg ngi nii baat bii ku ko sàlloo fii xaalisan mu sell ci yow ndax moo jiitu lépp baat bi moo fiy desit baat bi mooy siraatal mustaqim mooy ibbi àjjana mooy kalimatu ragal yàlla mooy kàddu dëgg wallaay mu mel ni nag والله والله والله والله فمن كان يرجو لقاء ربه فليحمل املا سالقا ولا يشرك بعباده ربه احدا kon xam ngeen ne baat bi am na solo kon tawxiit bi nga xam ne moom lañ koy tëje dooga nag feeñal asaar ya muy tawxiitul uluhiya wéetal yàlla kenn bañ ko bokkaale kenn te pour mu am lii ma la wax foog nga bàyyi ci xel xam nga lu tax dañu wax ni yii bu fekkee ñëwul ci yow jeexatul laa ilaha illallahu du mën a acti si yow ba nga naan yaa ngi xaar tawxiid am résultat li nga xam ne mooy laa ilaha illallahu benn bu njëkk tànk defoo tawakkalu alallaahi jërëjëf tànk tànk defoo atawakkalu alallaahi nga wakkilu ci yàlla képp xool leen Seydina Limaam alayhi salaam jàngale na ko fii gawar ya ñëwoon 40 gawar ya ba ñuy ñëw xoolal lu xew xam na liy waaj a ñëw xam na am na noonu ñuy ñëw ngir dal ci kawam bàyyi lay ak bëgg jàmm te nag ak a wóolu boroomam ñun gëm nañu yàlla mais wóolu yàlla bi moo des loolu mooy tawakkalu nga xool Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam jimbi lu xew waaw ولا اي واو آه. والله لا لا توكل على الله والله فخر رسولني والله

lii fa lay téye xoolal xoolal mu ne bu amee ñu fi ñëw jublu ngir def ma safaan bu leen def dara wax leen sax leen ci laa ilaha illallah loolu digle alxuraan li mu wax wa iza laqaytum fi atan fasbutu waskurullaha ku naan bay lay yow kenn kenn waa ji kenn mënu ko comprendre bu ngeen dajeek fitna sax leen ci tudd yàlla keroog mu am luy ñëw mu xam ñii ñëw mu digal leen ko kooku mooy alxuraan kooku mooy alxuraan waaye wakirlu boobu nag moo des suñun ñun ñëpp nag bu ñu bëggante woon commencé ko ci kër yi man sama wopp laay tàmbale yoof boo fa duggoon tey jii mag ñi nga xam ne ñooy régler problème kër yi sonn nañu torop te kat ñaar ñi nekk ci kër gi xuloo dàggasante gu werante ñooy demaat ci géew ga naan bàyyi laay mooy rasulullah laa ilaha illallah laa ilaha illallah boobu ban ban jeexital la def ci yow dañu waxante dëgg nag ñu dem ba dugal ci mbirum njibar damay dëkk fii nga dëkk fii bàyyi badu mii am ku ko oo jox ko kër gu mag nekk macha allah jox naa la ay millions fay na ko mu ñëw commencé tabax dem ngeen a bàyyi ba du mi du dem naa uti maa mën dog yoonam tekk mu feebar ak nattoog ñoom seen parce que bu gëmee kawe ëllëg dañ naan moom mu ëpp nangam ak nangam kon laa ilaha illallah bi ñu wax ana tawxiid bi ana tawxiid bi ci côté góor ñi ëppalante bi ma wala takasuru maala dunia bal takasuru xayral axirati fan nañ ko dugal te lépp ci laa ilaha illallah bi la parce que bu dee laa ilaha illallah bu ko firee amul benn yàlla bu ñu war a jaamu ku dul yàlla déet da ngay gëm ni ndogal bu mën am yàlla la parce que boo boo gëmul ndogal munoo munoo am jeexitalu laa ilaha illallah am na koo xam ne am na koo xam ne ku tedd kii Sërif Baye Abdoulaye Thiaw Lahi moo ko jur xoolal dama la ko jox misaal dangay bokk ci kër gi di axlu bayti keneen bokkaat ci kër gi di axlu bayti nga mag ko fuuf mais Issa wax bu jotee nga ne ko rakk waxal loolu mooy gëm yàlla parce que xam nga ne yow loo jàng jàng mais wax du sa mënin nga gëm yàlla mais nga jël ne da ngay forcer forcer day day war kon laa ilaha illaa pour mu am jeexital su ñun faw ñu bàyyi xel taw tawxiit bi nga xam ne mooy uluhiya xam na yàlla mooy joxe mooy xañe mooy dogal lu neex ci yow moo koy dogal safaan loolu foo mu ñëw beneen bi mooy pour laa ilaha laa am jeexital su ñun faw ñu bàyyi xel ci lii tawbat tuub mais ñun suñu tuub dafa garaaw oustaz Modou ñun dañuy tuub léegi suba bi gën a metti nañu defaat te ba nga koy def xam nga ne laa ilaha illallah mi ngi ne jëfëratan di la xool di la gis kon sa laa ilaha illallah foo ko dugal am nañu problème wax naa ko ki nga xam ni mooy aarona keroog ba ñuy waxtaan yaa ngi may wax ay mag ñoo xam ni macha allah ci seen laa ilaha illallah buñ ko mosoon digg ci tànt ñii dañuy fittirlu ñii mbëkk miiri ñii nangam ak nangam ñu ne foofu nañu xool attention ci jamonoy tey jii appel bi paase rek ñaata nit la waa sapeur pompier yëkkati di yóbbu nga ne gis ngi ñi dañoo am leer moo tax ñuy daan waa léegi ñi daa ñi daanawul nag léegi kon ñi daanawul ñoom amuñu leer xanaa kon léegi imam Makhtar ñoom Mouhamadul Amin ñoom ñiy wax boobu ba tey te daanuñu kon est-ce que ñoo du ma àgg ndax orma du ma ci àgg ndax orma <laughs> waaye ba du mbirum daara laal def kon attention dafa am ñoo xam ni aarona bu ñuy ñëw ci giiw gi ba ñu dugg biir jàmmalaay ñoom rek dugguñu ñoom ba ñuy dugg dañuy duggaale seen seytaane jinne yi nga xam ne dañuy ànd ak ñoom seytaane jinne yooyu nag dañoo mënul dégg baatu laa ilaha illallah buñ koy dégg di dégg di dégg dañuy ànd ak moom jikki bi saak di fittarndu pour mën a génn daw tànt bi nu ñuy nag day tax waa waa waa nga xam ni mbir yi moom la àndal du ànd ak sagom at buñ affaire yi foofu xel de ah? parce que sinon dañu yaakaar ni ku deful loo rek yow jëloo ci leer dem sa yoon dafa am gis nga laa it xoolal fekkal fekkal ku daanu fekkal ku daanu jege ko ndeyjoor wala càmmuñ sekkaleen laa ilaha illallah am na koo xam ne moom waa ji moo koy waxloo ci làmmiñam bàyyi ma waxuma nga ne ko waxal mu ne waxuma waxuma nga jéggi si àgg am xam-xam ay tu di ko tari du am jàmm affaire la loolu foofu mu génn ni mu duggee nag mën naa yomb mais génn bi mooy jafe moo tax waa ji di fëtturlu di fëtturlu xoolal day jëg saaga sax daanu nangam nangam ngay mu xippali ko lan la lay njëkk wax wax man lan moo ma def nii moom mooy laaj li lan la nii am doole joo xam ne dangay xam ne waa ji lii du dooleem ndax léeg-léeg nga gis ku mel ni man tuuti loolu mais bu jéemloo dafay am doole joo xam ne ñett ak ñeenti nit paccax paccax sonal tànt bi yëpp moom mooy prévoir di laaj ci qu'est-ce qui se passe lu xew lan la loolu mag na bay xel waaye am na ñaari yoo xam ne mag ñi daanañ ko seetlu ci ñoom suñuy jëllu boo gisee maam Seydi alayhi salaatu wasalaam sikkiru julli bi ñu def léegi ci jàkk ji mag ñu daawuñ ko jullee boobu sikkiru dee bi ñu yóbboo suñu néew moom lañ daan sikkar mais dañ ko daan sikkar mag ñuy jëllu ñu gis ni lii mi ngi jël temps moo tax maam Seydi dafa tëgg ko muy siira bi mu tëggaat ko boobu nag naka la ci ñaari ma jot a gëstu man ñaar laa xam mag ñi daanañ jëg saag rek sandar nga ju tuuru tuuru bu metti wala ñu jëg saag nga seen seen yaram daal daw dellu siwaat yii daanañ ko xar baax ñu koy gisee ci mag ñi waaye buñ ko bëggee jàpp ci beneen anam bu yàggee dafay daal doy waar kon lii foofu ñu xam source xam bu nekk fu ñu koy jële teg fa suñu tànk li la dimbali mooy di wéetal yàlla di sell mooy du ko lépp loo xam ne safaan la wallahi waaw li xayri sabihi wa kullihi murihi wa lii nga wax nii nga wax nii moo taxoon ku baax ki daan wax naan ku daan dem ca tànt yi ñoom seen bu fekkente ni am da nga manqué cangaayu cangaayu set sangul ba set mu ànd ak njàpp la ndax yi sell yi da lay dimbali ba nga xam ne léeg-léeg raj-raj yooyu di am sax seytaane yàlla may na ko maqaam boo xam ne ku xam histoire suy na li ma am bàyyi lay taxaw na taxaw nii mag ñooy si kat seytaane ñu ruuxu seen biir loolu xanaa histoire boobu ku ne dégg na ko mun na ko yow seytaan loo def fii yuuxu ko rek seytaane meles dem waaw su fekkente ni te te te te wax nañu sax ci biir julli ci biir julli xam nga julli lépp tur yàlla la suñu borom ne ne seytaane ba tey du leen bàyyi mooy waral seytaane moom ci boppam yàlla mel ne ko daraja joo xam ne da ngay taxaw di taali di julli muy daw sab li nga xam ne mooy deret mu ne kam majri dam bi mu ne deret ni muy dawee ci nit seytaane suñu borom ak ay armeem soldaaram yi yàlla may na leen doolee joo xam ne mën a dugg sa biir loolu foog ñu bàyyi ci xel kon mbokk yi ñu ngi jéggulu ndax biñ fi taxawee ba tey bu ñu toppoon carnet bi ñu téen defe naa kon dana gën a lu ma tuddati waaye daal li ëpp solo mooy la ñuy résumé mooy ñu fi tuug ñëpp xam ne tawqiitu laa ilaha illa allahu kenn mënu koo am résultat bi ci ñun fekk sa wéetal yàlla sellul faw tawxiit bi nga wéetal yàlla xam ne yàlla képp moo fi nekk jox ko ak kam loole pour mu am sa xol bii tilim tilim yi nga xam ne dafa dafa bon ci xol génnee ko te bi ci gën a garaaw nag mooy alxasadu kiññaan eh, réew mi lu tax ñu tardé loolu rek moo ñu sonal libaas nag dafa waxoon ni lu fiy jullit ñu bokk ndey daggan ci buur bi waaw waaw léegi est-ce nekk nañu benn et enfin nga ne hmm. dafa reelu xam nga bàyyi bàyyi badu moom kenn du moom kenn du moom nee na ki ñaan Babacar loo wax nga ne c'est lu tax jimbi lu tax dama dégg li tax micro bi jimbi man sama waykat bi daal fu ma jëm ak moom ca laa bi si na fii lu tax nga ne dafa reelu ki ñaan waaw kon yow kon yow da ko bëgg tënk rek yéene ji nga xam ni mu yéene safaan yi nga xam ne làmbug jëf yi mais yow dafa mel ni am na beneen xalaat boo ko mën tënk ci olof. li taxul <laughs> day moom ci boppam dégg ngeen li mu wax man bi mu bi ma waxee tournée mu ne ma naa Issa ñaar dégguma ko ñetteel laa xam ne Baye Badou am na lu mu bëgg a wax ca foo mu génn yow nga ne day siburu day jékki li <laughs> waaye def na lii ci Baye Badou waaye <laughs> ku ñàkk ki ñaan xam nga tax ma jox ko mu dem suñ am di suñ maam Ndonga oustaz Modou Aline Mbaye mi doy na seede ndax man ak ñoom ñoo départ ndoo ci liggéey bi ku ñàkk ki ñaan ñoom Birane ndeysaan Médoune Baye Badou maa moom ñoo tàmbali conférence bi fële ne le moom ñoo ko njëkk a sikk première année deuxième année mun na ma seen rek yow yaay suñu gan. te ñun ñoo la war a teeru moo tax bu ñu amee benn fenêtre mu càllandiku rek dafay baax ndax nag actuellement dafa jot laay ni nekk équipe il faut ñu nekk équipe di taxawalante doolelante taxaw mooy yoon waaw parce que laa ilaha illallah bi dafa am ay mbindeef yoo xam ne dañ koo kiñaan ak yàlla loolu histoire tey de bàyyi ba du yàgg a de moom laa lay wax. Hmm. ku ne li nga moom. Hmm. tegal nañ la ko foofu boo hmm. waaw. te kat boo rawoon si ginnaaw. bu joxee ba ëgsi bu la joxee. waaw di nga waaw ñii am. ndax jël nañ seen wàll wala déet. wala sax bu fekkee am nañ la ma am est-ce am nañu toll noonu. kay jërëjëf. waaw kay. ki nekk si bopp réew mi nag. Ah. mu jox la. waaw kon mi ngi noonu mu mel ni mu mel ni yal yàlla barkeel waaye mel ni gis naa koo xam ne rot na micro bi ci suuf lañ naan ñun suñu mbir yi moom day kéemtaan gis naa loolu Ibulaay boobu ba tey maa koy xool mu di ma xool gauche ak su ma ko xoolee mel ni kuy nelaw dellu suwaat waaye koor gi tubarkal la yàlla yàlla barkeel kon mu mel ni oustaz Ndongo oustaz Jibi Jibi caw nag daanaka sëñ Modou ñoom waxtu bi yëpp moo ñu koy mën a tudd ci nii xamal na ma loon ne ma su ma jumul 15 15 defe naa ni daf mel na wala des na ah kon mi ngi noonu kon wàccee lay def muy buñ fi jógee ñun ñëpp commencé ko ci man ak képp ku may déglu soo ko mënee soo ko mënee nag laay wax de te nga mën ko sax mooy li gën te nga jéem ko sax mooy li gën billaahi wallaahi taalaahi maa ngi wax man su ma génni àdduna est-ce que sax ki ma xulal ci biir kër gi est ce que nekkul ci kawam lay doge attention ken xamul su ñun boy genn aduna kan la fay fekk lélé ngay nonu nit tollu ci sukurat, mo lay wajal tahu, lay taxaw mo lay jappalé amna mama bo xamné xam ne da fay dam kéro ngay xamné amul benn bour bu ñu war jaamu kudul yalla muy tawxiidu laa ilaha illallah muhammadur rasul effectivement dafay am moment boo xam ne di ko bëgg a wax baal ma jéggal ma baal ma jéggal ma mais doo ko mën a wax parce que làmmiñ bi dafay dafay dem ba xam ngeen mag ñi kenn du ñoom tuub leen balaa ñooy dee ndax duniyaa moom billaay wóorul de naa noonu la ko waxee de دايما محبينا لا تبعدوا ابدا واو lii lii doy na sëkk ci laa ilaha illallah man de gis naa dégg naa ñoo xam ni wallahi alazim كروك لما يقسم ما وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للخيب الخافز في موي دار باي نيو لو بارام كم سولو واجي غو غور كي ميغي تي ات بي تي كير مي برسك سين وا كير ييب داف لين خلو اك سيرم ген ادنا benn frère am daw di dugg ci biir kër gi ndax mi ngi dégg riir bi mais mu def lu doy waar kooku fàtte ne sax maa kii xuloo nañu ni muy duggee pour dem xool naka lan la rek waaj na ko génnal si biti waay yow mu ne ko mais même même même loo may génnee kii kii tëdd suma mag la te ñoo bokk benn bàyyi mu ne ko xaw ma xaw ma nange mais comme mag yow dañoo jote kër gi si boppam sa tànk du fi teg booy xuloo booy xuloo yow booy xuloo suba ngoon guddeeg bëccëg ba néew bi tëdd mais seen problème ngeen téye ko sax nga téye seen problème parce que dama ne xeex sax xeex nit bi nga toog ak mom ci bir koñ bi di mbéjante ak mom di mbéjante mbéjante ngeen jik sax yeen ñaar yéenay waxtaan na sa way comme dañoo sonu nañ bay benen ñeen ñu agalé mbéjante sax loolu xolal non si parfois sax yow sa jëk rek jabar ngeen mero da ngeen di mero bu mu saf sap nga rombu ki rombu ki rombu ki rombu mais bu ngeen a kenn du dafa dafa doy war kon nañu dellu siwaat xel yi armeel dama ko far wax dama ko wax sama benn mag mu ngi tudd Tafa Ndoy dama ne ko gis nga boo xamul ëllëg kan moo lay taxaw jéemal jubóog ñépp ndax kenn mën taxaw alxuraan nee na ba kenn bu ne mënoo taxaw xam fan ngay mujje wala mu nafsin bi ay ardin tamutu nit fa ngay deewe sa bakken fa muy rote kenn xamu ko gis nañ ci àdduna fii ci Sénégal ku taxaw di fecc di fecc di fecc fa muy feccee fa la rote gis nañ ko ba tàyyi am déet gis nañ koo xam ne tukki na noonu nañ jëlee koor gi indi gis nañ koo xam ne ci biir këram noonu la doge gis nañ koo xam ne ci biir tànt noonu la doge demal ci li xew tey ressources gis nañ koo xam ne dafa toog comme nii comme ni may damay def waxtaan ak yéen kooku ni lañ ni lañ ko tegee micro bi muy jàng alxuraan jàng alxuraan yu neex day jàng ba si yàgg na teg nit ñi yaakaar ni nday xalaat ban aaya moo fekk waa ji dem na te am na koo xam ni mu jiite am njabootam rukkoo jub toog taaya taay bi yàgg lool nekk ci doom di ndaw dul di di raam mooy dox ba ci moom rek ne baaba dañ ko laa rek mu daanu dafa am yoo xam ni dañ ko war a weesu laa ilaha illallah bi ñu ni tey ku yaakaar ne mooy dem tànte yuuxu laa ilaha illallah rek daal di dem sa kër te am na ñoo xam ni commencé ki ci man Seydina Issa wàccee ko ci sikkarkat yi chaque jour ku ma xam ca daara ja ci ndiggalu sëñ Moodu mii dañ koy wax ak waarekat ci tawxiit nañ ci jiitu boo yaakaaree ni ñëw toog waare am xaalis mbubu bu rafet nangam ak nangam dem yaa fi toj yaa fi nangam des na ci yow li ñuy wax du xam-xam bu rëy xam-xam la boo xam ni mi ngi bàyyi ko ci rasulullahi ndax moom waqaatiqun ab qaran yaa an biha sabaqal jamiu lu koy am ci moom la ko jëlee mooy sa ngoo maam fukk foofu nga koy déggee fighting. Holy envy. ñëpp ñu war a noonu ngir bañeel lu mu doon na yàlla taa soppante mooy ngëneel mooy teraanga aljana wallaahi gay dogal te gindi rëy muy malaan mi yàlla moom ku si mu xañ la yiw muñ xaraasa aljanaay yàlla mooy dogal mbiram lu mu wax mu sax du dañ nangu leen balaa miraas li fi deesi adduniya gay nan daal di farlu te waaj yóbbal bu yiw te buñ ko waaj ndax ku xamul kañ la du waaj adduna war ya jege na waaw waaw nan da di farlu tawaat yóbbal bu yuute bum ko waat ndax ku xamul kañ la du waat adduna war ya jege naa wallaahi bakken dafay xëy ne xuree moom bakken ak lu mu la fekk ngay mébét moo xam mu jag mbaa te jagul fu dig ba yegg see sotti na wallaahi jam ñi ku nekk war ne xalaat lan jam ku nekk war nay xalaat ah. ci ab dundam la sooy ak li si des lu mu joof leel balaa paase jam ku nekk war nay xalaat ci hmm. at yi di ñëw ak a dem hmm. te am na si at moo xam ne yow sa ngay faatu nga nekk si àdduna te doo jaamu yàlla suma boroom teele jaas mu xëy la yeew sànni si bàmmeel rakulu na nga jël si biir bàmmeel bu yees waaw nga jël si biir bàmmeel bu yees waaw du sotti suuf ba